politik moy lan politik ni man musuma ci waxtan wax dëgg yàlla tey ci jëk waxtan politik xeyna bari nañu ci xam leg yoy waye yakar na lu leer la moy ni ñi doxale mbiri rek ni ñi doxale mbiri legi na ngay def ba jot ci mbir yi nga xamne ñepp ko bok nga len ko lijeentil lool lool moy politique maa na ngay def ba jot ak boo ci jotee na ngay fa ngay jaar ba doxal ko ba kenn ku ne nga jox ko lam ca war a am séddale ko ci anam gu maandu loolu mooy politique léegi nag loolu moom moo moo tax mu bari gi ginnaaw ñëpp ko bokk xéewal yi nga xam ne mu ne ci kaw suuf te ñëpp bokk ko loolu la kenn ñu bare bari bëgg na kaay li ma lijjanti jox leen ma ko <laughs> bu ngeen ko joxee ma lijjanti leen ko loolu moo indi mooy indi coow li ci am dafa am benn ay bu xorom mu ñu axnaf axnaf ci jamono yi yaakaar naa Harun Rashid la jafe-jafe am bekkoor am maanaam kilifa gi ñëw ci jàkka ji ne leen da ngeen di muñ ndax kat yàlla suñu borom mi nga xam ne mooy yore xéewalam dañ ko ci mangasinam moon teg natt bi axnaf ti ku am fulla jug ne ko xewal ye ya sun borom denc ci magasin mu magasinam xam nga lolou tok tok nuy wax yow xewal yim nu waccel ci nga denc ko sa magasin yi <laughs> mom lañ bëgg nga <laughs> génn nga génne ko mi ko kon loolu mooy gàttalu politique ci wax ju leer ne moy doxal mbiri ak anamu doxalin mbiri ak anamu atté lolé nak ñaari anam la man la denk nga am yoon wo jaar ba doxal mbir momé waaye man ngaa ñëw ne itam dénk leen ma loolu it du lu aay ndax gis nañ sayyidina yusufa alayhi salaam sàkku ñu jox ko dégg nga wàllu koom ca misra waaw ne leen man kat xam naa ko inni xafidun alim jox leen ma wàllu koom ndax xam naa ko te mën naa koo doxal suñu borom xamal na ma ko bu ko defee nag jëm politique am na ci lu xaraam am ci lu dagan lii dagan ni koy xàmmee mooy li fekk génnul cadre l'islam rek maa lu ci génn cadre islam rek ak sariya rek ak ndigali suñu borom bi rek xamal ne loolu lu xaraam lépp lu xaraamoon ci lu politique xaraam na ci politique jëw ni mu xaraamee ci bu sunu diggante yi noonu la xaraamee ci itam ci diggante politiciens yi ku fi jiite fi ne boo koy wax di wax sikkam yaa ngi jëw ndax ab julit la sëñ bi même bu dut ab julitam suñ tubaa daana wax ne bu leen jëw ab julit bu leen jëw ab yéefar ndax nee na jëw ab julit am na nu mu ko waxee dama ko dama mooy walaan sa dagg bu leen sa dagg seen dagg ak bu leen lakk seen dagg walaan sa dagg mooy jëw ab julit lakk sa dagg nag mooy jëw ab yéefar ndax ab yéefar amut lu baax nee na moom lam am ci lu bon rek la lay sànni jëw ki koy def mi ngi mel ne yaa ngi jël sa lu baax di sànni waajee imaamul Xasaali nee na bu ma doon jëw sama ndey laay jëm ndax moom la gën a yéene samay tuyaabam ndax yaa ngi jël ci lu baax li nga yor rek di ko sànni di xëpp am na kenn ci gaa yu baax yi dañ ko wax ne ko diw de wax na la nangam nga nangam mu yónnee ko neexal ne ko yow maa ngi lay sant bu baax ndax lii nga ma yónnee ci tuyaaba mën na ma dund ba te du ma ko am moo tax kon lépp lu xaraam rek xaraam na ci politique lépp lu daganoon itam dagan na foofee kenn mënut a wax ne lépp ma xaram kenn mënut a wax ne lépp ma dagan mbir la mu boole yu baree bare bare léegi nag ki ci dugg nag di am murit mooy moo war a am nu mu ci duggee ndax murit daa lu ko tënk ba noppi yooyu ko tënk nag wut a teqali koog moom maanaam ab jullit buy dugg ci politique day xool la dagan ak la la waaye murit moom am na bunt boo xam ne ci la war a duggee ci politique te mooy xidma buntu xidma xidma ab principe la bu mag ci yoon wi te mooy loo mën a defal nit wala mbindeef nga jariñ ko ko te yàlla rek tax te doo ci séentu ak pay mbaa ak cant mbaa ku ko xam loolu mooy xidma faxdimhumu turran li wajhillahi faqat bila mannin wala tanaahi fa xaytuma kunta min almawaadii fa fihi xaawil an faal afdal almanafii sëñ bu fekkee waxtu wi kii na nga nga nga kii ma dégg nga wa kullu ma tatlubuhu faqsud bihi wajha alladi abdaaka waltantabihi loolu mooy xidma sëñ Tuubaa wax ne bul ci am kii ak kaa li ngay def ci lu baax na nga ci na ko defal ñëpp xidmaal ñëpp kenn ku ne boo ko mënee jariñ nga jariñ ko moo xam ci wax la wala ci jëf wala ci xaal bi nga amee moom ak noo ko mën a amee rek loolee nag bul ci wut ak pay mbaa ak cant mbaa ko xam loolu mën nga ko def ak sab sëriñ xidmu boobu mën nga ko defal say waajur mën nga ko defal say mbokk taalibe mën nga ko defal say mbokk jullit mën nga ko defal sax koo xam du ab jullit ndax fax dim humu turral la sëñ bi ki nga xam ne nag daa ñëw ne kat lii kat gis naa ne gaa ñi moom ñu ngi ci te man jàpp naa ne mën naa koo doxal te incha allah am naa ragal yàlla goo xam ne bu ma ci duggee maanaam dinaa ci defuk maanu te kenn ku ne la nga war a jot ci sa xaq di nga ko jot dinaa yemale ñëpp ñi ñàkk ñi am ñi bokk fii ñi bokk faa ñi ma bokkal ak ñi ma bokkalul ñëpp laa ci yemale ak maanu laay doxal fas ci ne liggéeyal suñu borom di ci sakku tuyaaba jo xamni ci sun borom la yaakar ngërëmam ndax lima ci def setuma sax kuko xam ba ku ko ma ci sant koke mi ngi ci liggey bu reuy amna hadith bi wax ne ben bisub ab ab attekat bu maandu tey doxal mbiri nam wara nako sun borom bëggee mo jurum ben fukki at ak jaamu yalla keren mo ñoy tolo kon lolu tiya baa ngi ci moy kon buntu khidma ab murid bu ci dugg fofu lay way moy khidmal warna jariñ nit ñi lii nag mu yoroon leen ko doon nag seenu seenu seenub koo xam ni ma ab surga doo président tekkiwul ki yow ab surga nga war a doon dañ la dénk fexeel ba dañ la dénk ña ko dénkoon kenn ku ne na ko doxal ba gis ci boom ci maandu te bul jël xàq kii bul jëfandikoo mbir yi itam ci say wàllu bopp ak say mbokk ki yëf déedéet bunt boobu bu fekkee ab murit mën na ci tàbbi foofu la ci tàbbi ñaareel ba itam mooy am na melo yoo xam ni war na koy bàyyi xel ba ci njëkk mooy ragal yàlla kii dugg ci lu mel noonu wala ngay jël ab postu ak ragal yàlla nga ci war a doxee te sëñ bi moom la digaloon murid yëpp walla walaazimu taqwa bi sunnatil amin fadum ala saydil huda wa taa bi zuhdi wal warai wal qanaa akum njub maanaam ragal yàlla akum njub mooy yow boo boo xam nga këyit yi moom mën nga ci lijjante lijjante ba kenn du xam yow li nga def waaye yàlla moom gis na la gis na li nga def lépp xam na ko te mënoo koo jaar fenn itam mënoo ko rëcc yàlla moom na nga war a bàyyi xel ñaareel bi itam war naa xam maanaam xutuwaram maanaam yor mbiru mbiru mbooloo mi loolu sëñ bi dara gënu koy dansé fi mu ne euh, Ubaydullah Ubaydullah ibn Ziyad doon ko doy waar dafa dégg ne Maqil ibn Yasaar al-Muzani dafa feebar bay waaj a faatu ne mu ne naa ko seet bi mu ñëwee nag fekk Umayr la kenn mosu ko ñëwee Umayr la ibn Siyaad mooy mooy nekkoon Kuufa ñoo faat Sayyidina Xuseyn xam nga dagg bopp ba sëñ bi di ko wëralee ci adduna bépp te muy sëtub Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mboolem ñi fi yonte bàyyi woon ci njaboot yëpp di juróom-ñaar fukk ak nangam ñoo leen faat ñoom ñëpp ci genn bëccëg ba mu des ñett ñoo ci rëcc bu doon loolu yonte bi dafa amul sën ba mu ñëwee nag di ko seet si rek Ubayd la maaqil ne ko kat ginnaaw maa ngi waaj a faatu lii mën naa la ko wax bu fekkoon nag xam naa faatoogu ma sax du ma ko ñemee wax waaye xam naa ne man sa man maa ngi waaj a faatu mooy yé dégg naa yonente bi wax ne sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu ma min abdin يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة كيف كو خامن يالا دنك nga am loo yoral nit ñi war leen koo sàmmal nga am genn wuru goo ca def ak lu mën a demee rek nee yow doo tàbbi àjjana yow ak noo mën a mel ak loo mën a def ci jàmm doo tàbbi àjjana àjjana doo fa dugg yow sawara rek nga jëm yow xam nga loolu lu rëy la xóotóora boobu nag danger boobu nag ko ne war na ko bàyyi xel ñaareel ba mooy Seydina Abu Dharr al yi di saxaabi yi bu baax bokk ci tànneefi saxaaba yi nana sufyan kay buñu jël misal di ci bari ci mom lañ koy jël ak de dom dafa mas a wax yoonte bi ne ko dama bëgg nga jox ma pastu sàngam ma nek fa yoonte bi ne ko ya abadar innaka daifun wa innaha amana wa innaha yawm alqiyamati khizyun wa nadama illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi alayhi fiha ne ko yow da nga maanaam saxol da woyof new doole gi jubluñ ci new doole gi waaye saxol da woyof nga gaaw bari yermane te lii dul woyof xam nga koo xam ni maanaam ku ñëw rek mu yërëm la nit mën naa yërëmtalu fi kanamam ba mu jox ko xàqi jàmbur fi ne moo tax yonte bi ne ko yow danga ngaa néew doole te sa xol woyof te lii di amaana boo xam ni euh, gàcceg ëllëg lay jur ak rëccug ëllëg nga xam ne juxu ko du juxu ko poste boobu moo tax jëmmi li ñu la dénk daa aajeeg maandu ak yemale ak di ci doxal na ko suñu borom bëggee wala yajrimannakum shana'aanu qawmin ala an laa taadilu iadilu yonente bi àggoon na ci wax ne Fatima sama doom jii de bu sàccoon sax ma dagg loxoom Seydina Omar ibnul Xataab doomam wax nañ ko ne daa daa naan sàngara am na ñu wax ne sax ne ba mu koy naan xamutu xamu ko woon waaye teewul suñu naaw Seydina Omar da ko yóbbu ca penc ma dóor ko téeméer yar yoo xam ne ponkal la wut moo xam ne ba koy dóor téeméer yar ba ba mu daanoo rek la waa sedd guy daa faatu ca ca dóor yooyu Seydina Omar te boobu mooy amirul muminina moo tax maanaam yor loo xam ne ñëpp ko bokk loolu am na danger boo xam ne ku bu ci dugg war na war na ko bàyyi xel ba tax na war na ci ànd ko yàlla war na ci ànd ko dëggu ak matal wëlëre akuk sellal ak wormal deri nit ñi ak seeni alal ak seen seeni seeni deret tey def lu baax te yàlla rek rek tax di ca woote jëm di taxaw ci dëgg te bañ ca génn te di ko wax te di ko jëf te li muy def mu koy seeral suñ borom te bañ a jaxase dëgg ak fen di sàmm dëgg itam di dimbalante ku muy jàppalante itam ci kaw bëgg suñu borom wa taawanu alal birri wa taqwa wala taawanu alal ismi wal udwaan fi ne bëgg baax na waaw waaw foofu li ma fi daan rek mooy mooy mooy damaa seetlu suñu kilifa yu bari fële boo gisee wate yi ñoom duñu wate loolu du ceegee ni am na sax ñoo xam ne jàpp ne masalan war ñu waaye ñu ci bari fi ne jëpp ñu ne sax dafa xaraam waye japp nañ ne bo wateelee waa ji yaa ko fal léegi mom lu mu fi def ci lu bon yow da ngaa jàppalanteeg mom, da ngaa dimbalanteeg mom ala ismi wal udwan xam loolu na gisin ragal yalla wu tar la donte nak amna na borom xam yi gis nañ ko gisin wu gëna a moy japp ne dañ séré lo rek yow ki ak ki ak kii ku ci gën nga ne ah ki da japp na mo gën koko yow xam nga sa yonne ko ci wala taktumu shahada mota amna ay jikko yo xamni warna na képp koo xam suñu borom denk na la mbir wala nga koy sakku nga lamboko ko waaw ah, itam am lum lu won moy bul andak ab say say bal ma ci kaddu gi way noonu la ko sëñ wax wala lahu suhbatu fasiqin wala khultatuhu ko xamni wor la ne du ku bax bul andak mom lol ligul ndigalu sëñ wax na itam ne ku rek bul andak mom wala takun mukhalitan dawil ghuful bal kun musaaxiban axi dawil uqul seetal boroomi xel yu maanu nga ànd ak ñoom waaye bul ànd ak ku sàggan sëñ bi waxoon na itam ne kuy mooy yàlla it bul bul ànd ak moom wala tamilu li dawil isyaani nee na buur bu jeng itam bul bul dox jëm ci moom mukk bul ko seeti mukk bul ko siyaara wala tasir li watarin li umara al jairina abadan wal abadan wal wusara wax na itam ne maanaam bul dox mukk jëm ci koo xam ne ab tooñkat la moom wal taxfadu arjulakum min mashi ila muharramin biha aw saayi ila salaatini dawi zulmi bila daruratin xat xuqiqat xanaa lor ji wër war waral ko boo mën nga caa dem moom ndax nee na képp ku toroxlul nit ko nit ku baax te am alal rek nga toroxlul ko ngir alalam ja nee na sa diine bu doon ñetti xaaj ñaari xaaj yi moom dem na nee na ab tooñkat nag boo ko toroxlulee boo ko boo toroxloo fii kanamam nee na yow sa diine jëpp moom dem na amatoo dina tawaaduun ila alganiyi saalihi yudhibu thulusay diini kulli saalihi amma tawaaduun li zalimin fala yabqa min addiini layaadun uqila waaye nag sëñ bi wax na ne mas naa maslaa loolu it wax na ña ko war a def du ñëpp wax na itam ne maanaam waaye loo maslaa maslaa itam bul topp mbindeef ci mooy yàlla wa bil maasi laa tuti maxluuf maxluqa yooyu yëpp ay ndigal la yoo xam ni daana wax itam ne am na yoo xam ne yu am solo la ci kii foofu lay daanale ci ci wàllu googu mooy dee leen tuumaal seen boppit loolu am solo la maanaam mbir mi bul jàpp ne sa waay kee rek moom moo ki am sikk léeg-léeg deel tuumaal sa bopp am murit dëgg-dëgg Sëñ Tuubaa daa wax ne sikk yow bul jàpp ne keneen am na ko sax nag jàppal ne yow sikk yëpp ci yow la ne nga jëm ko lijjanti ittahimu wattahimu anfusakum wa hassinu bi rabbikum dannan fa huwa almuhsinu te bul geesu itam bul soxore kenn bul iñaane kenn itam loolu suñ ndigal suñ Tuubaa la wala tamit li xeq xeqdin aw li xasad balin wi xayraatin li kulli muhtad del lëbire ñëpp itam maanaam mën ngaa lëbire waaye lëbire itam am na ay dawaabit ak ay ponk ak nuñ ko war a defee ak kenn ku ne na ko war a lëbire loolu lépp xëy na waxtaan wi du ci àgg desoon na beneen beneen gisaat noo ngi jégalu bu baax asalaamaaleykum <laughs>